bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru bamsasin junnatun jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral seen émission safar gi mbokk yi gis ngeen fi ñu jugee démb waaye tamit gis ngeen fu ñu jugee tey ci Nord Foire waaye tey jii ñoo ngi Sandaga bu ñu fi nekkee Sandaga dañ fee fekk ay xale yoo xam ne ay jàmbaar lañ ci yoonu murit waaye am na xale yoo xamante ni bu ñu leen fekkee fii ñuy joxe lekk ñuy joxe naan duñ leen a guleet parce que miin nañu ko tàmm nañu ko xaaruñu bés bisu Serigne Bamba bi ñuy joxe lekk chaque jour ñoom bëgg nañu jël seen i dërëm di ko def ci yoonu Serigne Touba sëñ Modou maa ngi lay ziar bu baax a baax ci yow laay njëkkee maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay bu baax a di kontaan ci teewaay bi bu baax a baax euh, di gën a kontaan rek ndax yàlla dogal na li liñ ko bëggee woon daal defe nañ ko lu kawe suñ jor te lépp loo xam ne si ne yéene woon nañ ko ci rek ñu ngi ñaan yàlla mu mu defal ñu di ci euh, gërëm suñu mag yi nga xam ne si ne ñoom lañ ci àndal nga xam ne si ne moom ñun Modou balaa ngaa gërëm. waaw balaa ngaa gërëm ñu bëgg a xam tey euh, safar gi. lan ak lan ngeen def lan ak lan ngeen rey rey ngeen gileem wala nag wala xar. affaire yi waaw moom moom liñ liñ toll lépp def nañ ko moom rey nañ ay nag. def nañ ay ginaar ak yëpp li nga xam ne si ne moom noonu kii lépp def nañ waaye daal moom moom moom def nañ ko lu kawe suñu joor ndax lan defoon daaw def nañ lu ko fukk te ren te incha allahu rabi yi dañoo bëgg beneen bu ñëwaate gën a gën a gën a doublé waat morom ndax yoonu suñ tubaab moom tànk kanam laa am amul tànk waaw moo tax soo si bul dem taxawal sëñ bi naa def waaw maa ngi lay fay bi naka la man Cheikh Babou. Cheikh Babou tey bisu tey bi ban mbégte la ngeen ci am. waaw kontaan nañ ci loolu nag waaw di dellu di sant Serigne Touba bu baax a baax di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf mi moom nii la ñun ñëpp ñoo ko bokk te yoon Serigne Touba tànk kanam la am amul tànk ginnaaw mhm. te lii bi koy commencé métti woon na kon nag bu ñu ci demee ba tool bi dañuy santaat Serigne Touba bu baax di ñaan ñu wàcc ci suuf taxawal gileem yeeg yëpp ndax yoon Serigne Touba moom noonu la mhm. waaw ay mbiram moom day gën a leer rek. di gën a tey bëgg nga. kontaan a lool xol bu seet. kontaan nga trop xol bu seet laay waxee. lii lancement la rek film baa nga Touba. la film baa nga Touba. kon ku ñëw Touba di nga xam ne film baa ngi. noo di nga xam ne foofu la. Hmm. bari sëñ Touba. jërëjëf kontaan naa. jërëjëf ñu jël ñu kenn si soxna yi noo nga tudd. Daba Sène laa tudd. seen taali Demba Sène. dëkk Rue 25 angle 2 bis. ànd Serigne Touba bu baax a baax. di sant di gërëm mbooloo mi fi nekk yëpp. yi leen defoon daaw ren dafa yokku sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla ñu feeñee fekkee ko ay déwén yu bëri yàlla yokk xéewalu xal yu góor yi yàlla barkeel leen wax dëgg yàlla ñu am pasteef la ay jigéen la ñu waaye ñoom ñoo ñu dooleel su booba léegi ñu ngi ci togg yi ñu ngi ci yàq yi li ci métti ñoo ko def kon ñu ngi gën a yokk sant di yokk sëriñ bi ña di ñaanal sëriñ bi di wax sëñ Mountakha yàlla na ñaanal taalibe yi ñu yokk ba yëg ko waaw li waa ji wax rek film lancement la film baa nga Touba koy Touba yoo xam ne lépp dëgg la xam sëñ Touba rek mooy kenn jërëjëf sëñ Fallou kii kii suma tooma la sëñ Fallou maa ngi lay ñu ngi lay fay de la char. Eh, mbégte mi tey. gannaaw bi ngeen defee benn joxe lekk joxe naan. joxe was joxe ataaye. joxe lépp loo xam si ni day dem ci biiru doomu aadama. Serigne Touba dafa woote ne nañ ko santalee yàlla sunu borom. tey mbégte mi lañ la sëñ Fallou. waaw mbégte mi moom wax dëgg yàlla xanaa kontaan rek boo gisee gars yi ak seen taxawaay ak liggéey bu mucc ay bi nga xam ni sëñ Touba rek moo ko jaar kontaan nañ suñu xool sedd daanaka gars yi joxe nañ seen ñàkk joxe seen yéene def nañ lépp luñ man parce que sëñ bi dafa woote màggal gi pour ñu sant la ko daanaka boo xoolee lii moom ku ne xam na ne ak sant la. koppar gi ngeen ci def boo ma ko doon limal ñaata la toll. loolu moom kenn mënu ko xayma kenn mënu ko xayma ndaxte yëfu sëñ bi moom da ngay def rek. def ngeen ci 2 millions wala ëpp na 2 millions. mën na koo ëpp sax mën na ko ëpp mais doo nekk di calculer loo def ak loo deful da ngay def rek ba fa nga mën a yem nga daal di yem foofu noonu ndaxte mbiru sëñ bi moom noonu la boo dem yéene ngay demee moo tax doo mën a xam loo ci def ak loo ci defal. jërëjëf sëñ Fall jërëjëf ñu ngi lay fay. 18 safar la ñu wax Serigne Bamba woote ay bernde lee ko yàlla sunu borom tey lan nga ñu mën a wax ci lool maanaam sant rek comme ni ko sëñ waa wootee rek sant ñëpp rek te ñaan dool leen rek suñ boobu bu ne lu ñu ci def ren rek bu déwénu ñoom lu fooxa lu ko lu fooxa rek te noonu def ndigal rek loolu rek lañ ci xalaat waaw ndigal rek lañ jëfe ndigal lu ñu digal rek ñu koy jëfee rek waaw. sëñ Tuubaa nañ ko santale yàlla ñu ngi koy sant suñu borom liñ man rek bi mooy ñaata at ngeen di ko def nga ànd seeg say doom bari na bari na ko commencé ba léegi wax naa man ay ñeenti at yooyu waaw koy def waaw mbégte mi tey lan mbégte mi bu sedd rek waaw sant sëñ Tuubaa rek xol bu sedd rek te ñaan bu ne lu ci waay def rek nga def lu ko rek waaw loolu rek la ñaan lan ngay wax mbokki taalibe yi ak xale yi nga xam ne ànd ak ñoom ci bis bi waaw sant leen ñoom ñëpp rek di sant di gërëm rek ñaan bu déwénee rek ñëpp ñu bokk àndandoo ko rek defe ko daal nii rek waaw doole gën a sant Sëñ Tuubaa rek ñaan suñu mu taxaw mu yàgg fi te wér rek waaw yàgg fi wér lool maanaam bu déwénee lépp lu ci waay def rek jéegu bu ci waay jooge rek nga joggi baat bu ko gën a garaaw waaw ci barke Sëriñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa moom amu tànki ganam tànki ginnaaw tànki kanam rek la am waaw loo commencé rek day eggale waaw lool rek la jërëjëf Sëñ Tuubaa baax waa rek salaamaaleykum Pape Modou Fall maa ngi lay maa ngi lay fay. bis sa tey. waaw Sadil Sall nawet jënd Safin Amano Silbara yi. barke sëñ Touba. waaw sant sëñ bi rek. te xam ni lépp moom ci sëñ bi la. moo nu ko jaral. ah ñu bàyyi suñu yëpp rek. takku nekk benn liggéey sëñ Touba. ñaan lii nag ñu yàgg koo def lool barke sëñ ndax sëñ Touba jaralu ko. yàlla na sama borom jàppale ba man koy liggéeyal fu mu tollu rek doon ay murit saadix di liggéey sëñ Tuubaa sax ci ngërëm sëñ Tuubaa loolu rek lañ bëgg. jërëjëf. naka la. ñaañu cuun. ñaañu cuun tey yaa géré ah, sama doom day ma indi. pour ko seen waañu safal eh, mi ak togg yeeg bernde bi tey mën nga ñu koo lépp lépp. sant Serigne Touba la ñaar. yokku ci rek laa ci gis te it toog gi aw na yoon te ki koy gérer aw na yoon mhm. neex na bari dañuy def rek ci sabili laay ñëpp ay lekk ba jeex waaw. jërëjëf. ñu ngi lay fay bu baax a baax bi naka la. waaw ah, man Lamine Mbaye laa tudd. waaw ñun nag xam nga boo gisee fii ñi suñu mbokk taalibe lañ te comme li ñuy wax rek yoon suñ tubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am. te yaakaar naa ne bu ñu suñuy mbokk taalibe woote lu mel nii kenn waruñu see jiitu ñun ñoo nekk fii di seen dëkkandoo di soudeur métallique yi ñu yàgg bokk ñoom lu mel nii kon nag bu ñu xewlee yaakaar naa ne ñun dañ cee war a sóobu waaw di leen ñaanal nag lu ñu mën ren rek bu déwénee ñu mën lu ko ëpp wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ deuxième année nii nga ñu def li ñuy def nii xéewal yi benn yi lépp mat macha allah dara manqué wul ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk leen te barkeel seen liggéey borom béréb bi tamit yàlla yokk sàmm ko yiir ko ndax lii yombul am place bu toll nii ubbil ko ndaw sëñ Tuubaa ñu mën see jaamu yàlla mën see joxe xéewal yombul ndax bu ko ne lii du fi am ndax toggukaay togguwaay si Ndakaaru dafa jafe mais nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant waa ñi nga xam ne ñoom ñoo féetewoo fii yëpp di sant waa rii daal sëñ Touba moom am amuñu fayam yàlla rek moo ñu ko mën a fayal jërëjëf kii mooy soxna Khoudia moom moo nekk ci waañ wi ànd kook ak i yaayam ànd kook ak i magam wax dëgg yàlla mu bàyyi li ngay cofaatu li nga cof rek doy na mu ànd kook ak i magam ànd kook ak i yaayam wax dëgg yàlla mu nekk jigéen joo xam si ni man xaw ma ko mais dégg naa li ñuy wax ci moom ne coful ndugg mi ndugg na ndugg mu doy lépp loo xam ne jox nañ ko ko rek def na ko safar bi soxna Khoudia maa ngi lay nuyu. maa ngi ziar waaw kontaan naa trop ñëpp lekkee ci jàmm riz bi yëpp ñëpp lekk nañ xam naa ne Ablaye Seck moom tey moom Ablaye Wade moom du tey moom du jëndi añ. waaw wallaay kenn jënd añ macha allah ñëpp lekk nañ ba suur loolu la ñu wax sant yàlla rek sant mm-hmm. togg mi ndugg mi ak togg mi boo mën nga mën nga ñu koo limal tey tey li nga li nga li nga def fii li nga togg ci waañ waaw togg nañ quatre manam méchoui togg benn manam baxal ci suba ñu def laax ak ay kii euh, ndékki café Touba ak mbur ak yooyu noonu dañ def suba ba léegi. Mm. maa nduggi woon waaw. boo ñu comme que bi dëkk bi metti na mën nga ñu xayma ci wàllum koppar ci ndugg mi ñaata la saf na de dem na ba presque ay 600000. dem na de saf na de que ay 600 mille ndax leen xam nga léegi dara amul soble dafa cher pomme de terre amul dara amul mais comme dañ doon liggéeyal yàlla rek te xam nga sas dafa metti ñu bàyyi ñëpp sas la te bien vrai que ni fii laay liggéeyee man ak ñoom jàmm rek lañ seek mais ñu jënd yëpp loo wax ñu ne xuja xuja sas ma te sas dafa metti moo tax ñu ñu ñu ñu xataraayu rek liñ ci mën yëpp ñu def ko ñu bokk koog ñoom ñoom tamit ñuy ay nit yu baax ndax nit mën nga ko jiital ba pare faqastal ko mais ñoom jiitaluñu ma faqastal ma lu ma wax rek ñu ne ma waa noonu la ma leen koy sant di gërëm di ñaan yàlla niñ ko dëkkee nii ñu defoon woon ko daaw mu neex loolu daaw ci kaw amul woon deuxième amul woon personnel ren deuxième fees yal nañ ko toogee noonu ba ñëpp gis ci seen bopp incha allah ci barke Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nga àndaloon nag ci waañ mën nga ma limal ñi nga àndaloon ci waañ. waa ñi ma àndal si waañ bi bari na samay xarit ñi nga xamante ne tamit ñi ñëpp jigéen ñi ñi nga xam ne ñoom tamit ñoo ñoom laa bokkal marché bi tamit ñoom laa àndaloon ci ci waañ bi ak sama mag yi ak sama bàjjen bi ba ma ko woowee wax ko ndeysaan Medina la dëkk mu mu mu ñëw daw si boog sama mag bi ci suba ba léegi moo waral gis nga lépp teel na pare ñu séddale ko ñëpp lekk. ñu koy sante yàlla rek waaw di ko sante yàlla rek ndax nit amul lu dul lii liggéeyal nii jox jox nit ñu lekk. bi nga koy bi nga ko dalee def ba léegi yaa ngi yaa ngi ciy gis yokk. waaw macha allah vraiment macha allah gis naa ci yokkati bare bare di ñaan yàlla képp ku ci def sa dërëm rek yàlla barkeel ko incha allah ful ko ba ñun ñëpp ñu ciy gisee suñu bopp ñëpp gisi seen bopp incha allah. di gërëm koppar gi ngeen ciy def loo leen dajale la wala wala wala wala yéen a ku si nekk rek mooy dina ñaqam rek def ci. waaw lu ñu doon dajale la nag lu ñu doon dajale chaque vendredi dañ doon dama daan dem ci place yi ñu am lu ñu ma jox ak ba ñu paree ñu ñëpp ñu sasuwaat ku nekk joxewaat ki nga xamante ne moo samp fii tamit mu def ci tamit participation bu rëy rëy moom tamit de passage maa ngi remercier ndaxte ku def ku sanc lu mel nii amoo confiance ci kenn tudd moom Modou Ndiaye amoo confiance ci kenn nga woo ma ne ma ñëwal nga toogal ma fii kon lépp lii yëpp su amee c'est grâce à lui donc moom lañ koy sante du ko ñaanal yàlla ci barke Seydina Muhammad li mu mel ren yàlla na ko mel lu ko ëpp ëpp centre bii li mu ciy njott yàlla na ko yàlla defal lu kawe kawe njottam defal ko ñun ñëpp ñu fiy xëy ndax ñun ñëpp dañoo bokk day bokk bàyyi mënoon nañoo ñëw ku nekk di def affaire mais macha allah bañ fi nekkee ba léegi léegi mu nekk deux ans incha allah bi mooy suñu deuxième édition te lépp rafet te yàlla na yàlla saxal incha allah. mbokk yi li lañ leen indiloon euh, euh, fii si Sandaga ci riz bi. waaye di gërëmaat di gërëmaat kenn koo xam ne moom moom kër gi muy Modou Ndiaye jàpp na ci jàpp na ci bu baax baax ndax peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ja ah ñu say mbokk ñoo ko wax ñoo ngi lay gërëm parce que yaa ci jàpp yaa leen dooleel parce que lépp yow la may gërëm kenn koo xam ne nag moom xam na ah moom day jàpp samay émission day jàpp sama yof muy laay bu deef ma koy gërëmaat bu baax a baax di ko ñaana suñu borom defal leen jàmm mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ak Leral TV Leral point gis ngeen li am fii def nañu miss wi def nañu mbaxal def nañu soos def nañu lépp was waa ngi daw lu nekk ngi daw loolay moo lay war a ne yoonu Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànk yi day jëm ca kanam mais du dellu si ginnaaw mbokk yi di ànd ak yéen ñun ak yéen ba palaato yi nga xam ne moom mooy am biir Touba ñu ànd koog Leral TV Leral point net équipe bii dem ànd ak Birahim Touré ànd ak képp koo xam si ni yaa ngi liggéey ci plateforme Leral TV Leral point net fu waay nekk ci àdduna bi lépp lu xew ci Ndakaaru jël job ak banlieue bi ak biir Touba. la fa am yëpp dinañ leen ko woon ak mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax di leen sant Aline Badara yaa nekk rési jërë ngeen jëf bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman safaru ban fasi bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru ban fasin junnatun